Mody Guiro ñu ngi lay nuyu. am nañu mbégte dalal la ñu ngi delloo ziar amiin weeru kooru jàmm yàlla yow yaay secrétaire général bu CNTS confédération nationale des travailleurs du Sénégal tey ci premier mai bi euh, mu wuute ak euh, yeneen yi doon am ndax euh, défilé du am cahier de doléance également du ngeen ko jébbal président de la république donc naka ngeen nara dundee fetu premier mai bi ci atum 2020 waaw comme que ni ñu ko waxee rek am euh, réew mi ñu ñëpp a ko bokk. te booba léegi gis ngeen jàngoro bi fi nekk bu defee génn lëmbale àdduna bi yëpp te bàyyiwul suñu réew muy corona bi corona bi nag ba mu amee dugg suñu réew ak li muy commencé def ñu jël ay mesures gouvernement bi autorité sanitaire yi wax ñu nan la ñu war a taxawee ndax ni muy wàllaatee ñëpp xam nañ ko tey. te kuréel liggéeykaay yi dànk la parce que ay liggéeykat fu ñu nekk rek dañ foog ñu toog foog ñu waxtaan foog ñu ànd dafa nekk aussi lieu yoo xam ne mbir mi mën na faa law donc ba autorité jëlee dogal ne nit ñi mënatuñu toog ànd doon benn nekkandoo fenn parce que dañuy war a xeex euh, corona bi këru liggéeykat dañ commencé tëj ñu tëj këru liggéeykat yu bëri yenn këru liggéeykaay yi ñu réorganiser wàññi ña fa doon liggéey ñeneen ñu ne toog leen seen kër. ñi di def roulement maanaam bu ñaar ñëwee tey suba yeneen ñaar ñëw wala bu ñaar ñëwee ñaari fan wane na yeneen ñaar ñëw donc loolu a nekk gàllankoor déjà ci kër liggéeykaay yi waaye aussi nekk gàllankoor ak coono bu metti ci liggéeykat yi nga xam ne tey dañ doon suturlu di daan seen doole ñu xëy ne leen dem leen toog ndax li ñëw daa bett ñëpp loolu ba ma amee aussi ñu gis ni ñun syndicat yi puisque liggéeykat ñu tax a jóg ren ak corona bi ni mu duggee ak ni muy lawee te ñu war a bu àndandoo ñu ñëpp xeex ko dañu jàpp ni kon li nga xam ne mooy défilé yi ñu doon def le premier mais wala di dem président de la république groupe dem dépose cahier de doléance duñu ko def ren ren par solidarité donc ak le peuple et les dañuy ànd ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex corona bi continuer def jël premier mais bi aussi def ko journée boo xam ne bi mën nañu continuer kon nu ñu waxtaanee sensibiliser suñuy liggéeykat sensibiliser doomu aadama yi sensibiliser population pour ñu xam ni li tax défilé amul parce que situation bi dafa grave. Mm-hmm. situation bu mel ni gëj nañ ko vivre wala mosuñu ko vivre boog ñun su amee nag il faut ñu won nit ñi ni affaire yi du caaxaan dëgg la te metti na te day metti ji. ni mu loolu nag ñu fexe ba li nga xam ne dogal liñ leen dogal mooy li leen wax mooy sol masque soranteyoo di raxas si ndox ak saabu mm. di jël gel bi loolu yëpp dañ ko war a def mm. loolu moo ñu ciy xaw dimbali moo ñu ciy xaw a aar mm. di toog suñu kër ndax virus bi contact bi bu amee rek ku ko am mën na ko jox keneen facilement mm-hmm. donc bu dee loolu am na nag ñu décidé ne premier maire dañ ko ren buñ ko def dañu ànd ci xeex bi ñuy xeex ñun ñëpp am position boobu ndax position de solidarité ndax mbir mi du gouvernement rek moo ko mën a xeex. Mm-hmm. du patron rek moo ko mën a xeex du liggéeykat rek ñoo ko mën a mm-hmm. population bi yëpp ñoo ko mën a ku nekk fa nga toog mm-hmm. fa nga nekk di fa nga mën a da nga mën a def pour dimbali sa réew dimbale doomu aadama yi parce que dimbali réew mooy fexe ba mu bañ a law kon nag loolu consigne yooyu la ñu wax nañ ko mën a def lii moo tax organiser wuñu aussi premier mai bi jàpp nañu aussi mhm. duñ yem ci loolu maanaam duñ déposer cahier de doléance duñ dem ba président di ko fa déposer mhm. ndax nag ci wala mooy bala nga naam naam ne loo xam ne li xamuloo kañ lay jeex xamuloo nu muy demee nit ñaa ngi leen di ne tokk leen seen kër ñi ñu ngi waaj xamuloo dañuy dàq wala duñu dàq ëllëg ndax kër dañuy tëj wala duñu tëj mhm. ndax mbiru xamoo fu muy tombe fu muy yem kon nañ fexe ñun ñëpp focaliser wu ci loolu par solidarité ci biir këru liggéeykat ci liggéeykat yi ñu mettre leen au centre des décisions mhm. maanaam lépp lu def nañ xam ne doomu aadama bi moom moo ci war a jiitu mhm. kon loolu moo ñu ñor tey mooy suñu priorité loolu moo tax dafa ñu fête premier mai. alors ñàkk déposé cahier de doléance nga xam ne seen i càkkutéef ngeen ci daan dëxëñ jox ko président euh, du yàq dara ci xeex bi ngeen doon xeex. no du tout xam nga syndicat mi ngi fi tant kër yi liggéeykat yaa ngi fi kant ah, quand euh, Rewmi FM mi ngi fi liggéeykat yaa ngi foofu. Mhm. patron Rewmi FM ma ngi fa liggéeykat yaa nga fa problème bi day dëkk day nekk tout le temps ñoo ànd. mi hmm. mel ne làmmiñ ak bëñ la rek. Hmm. ñoo nekk fu bokk dañuy ànd mais hmm. pourtant souvent ñu de temps en temps ñu jàppante. mais jàppante boobu dañuy waxtaan jubóo continuer. mooy dialogue social bi war a nekk. donc revendication yi mi ngi fi du jeexul mi te dañ ko ajandi. ndax lii nekk suñu kanam moo ñu ëpp doole ñun ñëpp moo ëpp doole gouvernement bi ëpp doole liggéeykat ëpp doole patron bi mm. donc lépp loo xam ne moo ñu doon boole dañ ko teg de côté mm. xeex àndandoo xeexandoo mooy am na du ñuy wax ci théoricien théorie de la contradiction mm. contradiction bi nga xam mooy contradiction principale tey corona bi la kon nag moom la ñu àndandoo jéem ko xeex mu jógee bu fi jógee nag leneen na nga xam ne moo fi nekkoon ñu ay revendication doon wala di xaar wala waroon ko jotali ñoo ngi fi dañ leen koy jottali. li ci des mooy fexee ba corona bi liggéeykat yi seen bopp ak lu mu metti metti maanaam pour liggéeykat yi ñu ngi tëj mais droit yoo xam liggéeykat dañ ko am nañ leen ko mën a sauvegarder mu bañ ko nasaxal. parce que société bi ñun ñoo ko bokk réew mi ñun ñoo ko bokk droit yi am na. trois entreprises am na donc ñu ngi koy fexe ba entreprise ñu mën leen accompagner liggéeykat yi aussi a accompagner. Euh, mesures yi président de la république ngir euh, sauvegarder emploi yi yow dal na sa xel par rapport ak liggéeykat yi. dal na sama xel parce que ñun ñoo wax ak président bi wax ko li xew ak li nar a am. parce que aussi suñu responsabilité mooy alerter parce que voilà lii di am la kenn di wax ñun ba ñu gisee mbir mi nu muy duggee ci kër yi ak liggéeykat yi nañ commencé di leen wax ba tey jii. mu am ñoo xam ne dañu xëy ne seen patron yi nee nañu kat nañ ñibbi suñu kër pour lan parce que corona bi moo tax dañu tëj waaye ñu xamul nan la ñuy demee il faut ngeen jàppale ñu xam nu ñu waxuñu leen dara nee nañu waxuñu dara fayuñu dara waxuñu nan la ñuy fayee waxuñu nan la demee ñii naan suñu patron ne na fay fukki fan ah ñii ne suñu patron naan dafa ñuy war a dàq yooyu bañ ko amee déjà taxawu na ñuy commencé di waxtaan ak liggéeykat naan jaar leen fi def leen ni def leen la di alerte ministère du travail. ba yàlla dafay ñu daje président de la république suñu responsabilité mooy nekk ah bu ñu moytuwulkat kat lii lañ fii lañ jëm ndax am na ñoo xam ne déjà demaguñu fenn ñu mesures yi lañ jël or réew mi solidarité la ñu wax. Mm. solidarité boobu nag bu fekkee nee nañ war nañ jàppale këru liggéeykaay yi wax këru liggéeykaay wax nañ jàppale liggéeykat yi waaye mënuñ leen a jàppale ba pare ñu sukkandikuwaat di di di di di di note wala di di di abuser ci liggéeykat loolu kenn mënu ko nangu. donc condition la boo xam ne bi dafa war a nekk parce que solidarité boobu dañ ko laaj soxla nañu ko réew mi soxla nañ ko mais dafa war a wàcc ci gën a néew ñu gën a néew doole. ci loolu donc je pense président bi déglu nañu bu baax xam ne liñ ko wax jox nañ koy exemple yu moo tax saluer gërëm ko ci ordinance bi nga xam ne moom la njëkk jël parce que ordonnance boobu dafa am solo hmm. wane ni ci situation corona bi nekk kenn du fi dax kenn beneen bi mooy salaire nañ ko àgg assuré au moins à soixante pour cent. moom en tant que état bi nag dana gunge entreprise yi parce que day am ay abus tey mun nga gis koo xam ne kii moo diggiroo koon ci kër liggéeykaay fi mu nekkoon parce que délégué la parce que leneen la rek ñu xëy nekk waaw dégg na ngay dem sa tëdd euh, dàq nañ la parce que corona bi nii corona bi corona bi mënul nekk lay boo xam ne ni ah dañ koy teg ci ndoddu liggéeykat yi. mais est am na quoi li nga xam ne moom la ñu jël. mu saluer aussi mesures yu mu jël pour accompagner entreprise yi. Hmm. saluer mesures yi mu jël pour dimbale liggéey euh, population yi gën a ndóol. d'accord mais est-ce que am na assez de suivi ci euh, entreprise yi parce que fan yële dégg nañu euh, benn këru liggéeykaay boo xam ne dàq na lu tolloog juróom fukk ci ay liggéeykat ñu ne licenciement abusif la maanaam teguñu ko fenn ndax mesure bi ah. président jël ñu ngi topp dëgg-dëgg doxalin wi. xam nga mesure bi jël nañ ko droit la pour ñun ñun am nañ mesure de protection. patron yi nag am na ñoo xam ne ñu avant président bi di dogal bi. Hmm. nee na seen liggéeykat dem nañ ñibbi dañ leen fay cent pour cent xam nga donc mentalité ak réalité yi. Hmm. ak culture d' entreprise daf leen benn. Hmm. mais aussi ak forme organisation entreprise ak seen yi. ba lii amee aussi am na ñoo xam ne toog nañ joxtaan ak seen i ay liggéeykat xëy rek dàq leen naan ni dañ naan day toog ne ah lii kat am na nan la ñuy def. liggéeykat yi jox leen ay solution yoo xam ne sax quelquefois patron bi. xelam nekku ci woon parce que liggéeykat yi seen yi force de proposition du fekk une forme de contestation dafa nekk force de proposition parce que c'est des partenaires sociaux donc loolu day nekk patron bi nag bu amee patron yoo xam ne dañ naan bii sama kër la man maa kom moom kenn du fi wax lu ma nee wax beneen forme de patron la boo xam ne bi sax c'est des patrons xamuñ ni euh, environnement bi ak globalisation mi ngi leen di dépasser te léegi management bi ñu laaj dialogue lay laaj ak ña nga xam ni moom ngay ak ñoom ngay administré mais bu fekkee da ngay jaay ni man maa moom leen maa leen bien sûr doo li nga xam ne moom ngay war a am doo ko am donc qualité dialogue social ci biir kër gi liggéeykat bi ak patron ni seen ni ñuy waxtaane ci biir am na solo lool la gestion de la crise ak la sortie de mm-hmm. au niveau national aussi ñun comme ni nga ko ni ni nga xam ne ñu ngi jokkoo ministère du travail maa ngi koy saluer au passage vraiment ak amul waxtu boo xam ne suñ ko woy du décroché parce que cas yi nga xam ne danga nga koy ñun suñ ko xamee man moom laay def hein li ma la wax nii kaa yi ngay wax yëpp bu ci nekk dama koy jottali donc au jour le jour waaye lu ma xam man yëgal ma ko dana agsi ci kilifa yi te loolu laay def quotidiennement pour que ñoom ñu xam ni attirer na seen attention am nay comité de suivi yoo xam ne am na am na comité boo xam ne ak rencontre yu am au plus haut niveau am na situation yoo xam ne su fekkee ne jottali nañ ko fi ñu ko war a jotee courroie de transmission bi doxee kon ñëpp daañu xam ne lii kat am na fi ban taxawaay lañ ci am donc li nga xam ne li ñoom ñu ngi koy vivre seen biir kër war ñaanam dàq nañ ni en tout cas bu ñu ko xamee daañ nañ ñu xam ne rek ni pour ñun képp koo xam ne que dàq nañ la ba ordonnance bi génnee pour affaire corona bii wala situation corona ba mu amee ñu dàq la ci biir pour ñun et c'est ça la logique le licenciement est nul et non avenu à l'exception comme ni ko ordonnance bi waxee ñoo xam ne dañoo jalgati bu baax maanaam maanaam nga def faute lourde parce que mënoon ne du ma daax nga def fa doon nag ay liggéey liggéeyu ma nangam nangam yooyu am na yoo xam ne aussi ñu ko défendre li ñuy défendre mooy la nga xam ne li motif bi léegi moo ko indi motif li tax ñu licencié ko ci corona moom la ñu wekku mais bu mënul nekk leneen il faut foofu aussi liggéeykat di xam. am na solo alors ñu ñëw ci càkkutéef fi nga xam ni euh, amoon ngeen ko yëkkati ka euh, comme daaw par exemple ay euh, revendication yu bëri jugoon na fan ngeen toll ginnaaw waxtaan yu ngeen sumb ak kilifa yi ci satisfaction bi. li revendication yu bëri nañu parce que bi ci ëpp solo nag pour ñun moo doon. ñu finaliser li nga xam ne ni moo doon euh, convention collective nationale interprofessionnelle beneen di jëppoon solo mooy ñu revaloriser les salaire le salaires minimum et les salaires conventionnels man négociation yi fett na boor donc yooyu ñëw ci ponso la hmm. parce que convention bi depuis quatre-vingt-deux la te li muy gérer mooy li nga xam ne code du travail bi leeralu ko convention collective bi normalement dafa war a leeral hmm. te convention bi ñi nga xam ne amuñu convention wala amuñu accord d'établissement moom la ñu war a sukkandiku hmm. pour di ci mën a tënku loolu ay milliers ak milliers travailleurs ñu ngi ci biir donc moom lañ doon def mise à jour par rapport ak évolution bi nga xam ne def nañ ko ci suñu réew. donc loolu négociation yi yemul sax ci atum deux mille dix neuf bi rek depuis deux mille dix sept deux mille dix huit neuf dañ ko doon négocier yàlla def ba ñu yegsee ba deux mille dix neuf mu tiir ñu tam mu amoon deux points yi nga xam ne moo ñu doon xaw a bloqué amuñoon accord donc ñu ne nañ signé parce que aussi on peut pas nañ ko bañ ko évaluer xam nañu vraiment on a eu des acquis euh, si convention collective boobu ñu nañ ko si beneen bi c' le salaire conventionnel euh, yi ñu yokk salaire de conventionnel ak li nga xam ne mooy salaire minimum euh, ak pension pension bi donc loolu lépp c' est des acquis mun nañu wax yeneen mais en tout cas bu déjà loolu rek mun nañ ko jàpp comme étant des acquis importants mais loolu terewul ñuy wax ni revendication jeex na revendication ñu ngi fi dañ ko ajandi parce que am na yeneen ñu ngeen doon dégg dans certains secteurs système de rémunération des salaires le kii administratif et cetera pour les enseignants et cetera et cetera mm. yooyu dafa nekk loo xam mi ngi fi mais tey comme ni ma la ko waxee réew mi fi mu toll euh, wax dëgg yàlla sunu conscience mayuñu ñuy taxaw naan dañuy dem revendiquer alors que revendication bi am solo tey maanaam mooy fexe ba ñu revendiquer contre corona bi ci bopp la ñu xeexal. waaw moom mooy suñu ennemi daal mooy suñu ennemi principal ndax mm. moom bu fi nekkee kenn du tal dara ñi duñ tale liggéey ñi duñ liggéey la ñu war a liggéey seen xel du dal. duñ sa sa xarit sax bu la jege bu la nuyu mënu doo ko nuyu hmm. sa mbokk mënoo ko sa papa sa yaay doo leen nuyu te da leen doon jox loxo bés bu yàlla sax hmm. donc am na yoo xam ne nañ xam dafa garaaw gravité boobu nag vraiment war nañu may ñu am xel ak xalaat yi ñuy teg yém ñu teg ko de côté ba ñu jàll lii hmm. ndax nag bala nga naam naam ne fa alors bu ñu ko nattee daaw ak daal mun nañu jàpp ne kon nguur gi def na ay jéego yu am solo góorgóorlu na ci négociation yi am nañ mu def dans le secteur privé comme aussi dans le secteur public loolu laa mën a wax. mbir yaa ngi fi fexe nag ñu fexe nag ci pandémie bi aussi fi mu toll. Hmm. ñu fexe ba njëg yi maanaam ñu bañ ñu maintenir ko. maanaam ñu fexe ba mu bañ am spéculation. te gëm naa ne sunu sunu camarades yi UNACOIS yi ñu ngi may dégg xëy dégg nañ ma. te c'est des compatriotes. daañu ci veiller pour que mu am bañ am rétention de stock. mu bañ a spéculation. parce que nit ñoo xam ne la ñu amoon doyu leen. ñëw di ko yokk. te bu ñu demee wàññi ko ñu ngi seen toog seen kër. kon ndimbal mi solidarité bi bi ñuy laajte mooy nañ fexe ba ñu jigi en tout cas ñu maîtriser ko hmm. fexe ba ñu ba ñu yokk si des bu ñu fi jógee aussi comme ni ma ko waxee revendication yi si nekk mooy loas bi comme ni ñu ko waxee hmm. nekk na loo xam ne du muy impacté ci salaire yu dëkk yi ëpp na mais hmm. tey tolluwuñ ci naan dañuy discuter ay revendication pour yooyu ñu régler ko non seen revendication li ñu am daal mooy xeexandoo corona bi mu jóge fi bu fi jógee nag ba pare revendication nekkoon ñu ajandi dugal ko ci pañe mën nañ ko génne wala ba kon ne discussion mais actuellement daal li ñu tal dëgg mooy lii li nga xam ne lii yow mi sa bopp liggéeyuloo normalement mhm. dundatuloo normalement mënatuloo dem fi nga dem si liberté dañ ko jàpp parce que dañ ko confiner te pourtant mhm. imposé wu dañ ko war a def liberté boobu li ñu ko xañ mooy corona bi du keneen parce que dañu war a protéger société bi protéger réew mi yëpp ay mesure nag suñ ko jëlee su ko nit ñi war a nañ ko topp ñun ñëpp ànd ci. jërëjëf euh, Mody géro ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi fàttali ni yow yaay secretaire général bu CNTS.